Abdoulaye Touré wala Boubacar Seye wala ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mhm. man yenn saa yi dama ciy gis ñoo xam ne damay damay jékki-jékki di santaat yàlla Ousmane Sarr damay dem naan naan man te man ci samay wax nag li mu doon tàng yëpp ak loo may pousse maa ngi euh, bàyyi xel baat yi may jëfandikoo mhm. xam naa loolu xam na loolu sax mënoon naa tax bu fa sa añ nekkoon nga dem fa mais parfois nga gis koo xam ne da nga naan lii bu nekkoon man te mu wóor bu nekkoon yow sax la ñuy gën a jéppi la ñuy gën a torturer parce que au moins ñeneen ñi sax xamuñu leen wala seen baat wala nangam nang affaire yooyu muy lu ñaaw yoo xam ne ci fen lañ ko teg te fen yi kenn jiitewu ko ku dul moom moom bu dëgg dee am loolu mooy wax ci dama dem bay mettre en mal tarixa bi nga bokk di ko mettre en mal ak ay ndawi dëkkam pour yëngu Touba ñu di la fenal di la kàccal mhm. yoo xam ne dem bay yegg te café Touba nga naan moom la ñuy tuddee ci lakk euh, cocktail day fen te xamoon na ne day fen man man boo nekkee murit man boo nekkee nekkul jullit nekk ci réew mi di wax dara boo nekkee jullit di ko wax ci laa lay gën a jéppee lu bon mhm. gis nga bu ñu nekkee ci biir jullit nga nekk murit di ko wax ci laa lay gën a jéppee man foofu bu dama fu wuteeg ñu baree baree bare du ma naan ay mbokk taalibe nga naa la sàng sutura mais am na looy def lu xeeba yow laay gën a jéppi même boo nekkee en tant que taalibe ni man li may jéppi jéppi nga doon mbàkke mbàkke def ko ci laa lay gën a jég man moo tax ku mel ne Abdou Bara Dolly wala ñooñu du ma leen may dara. maa ngi ko dégg sax mu naan mu naan Macky Sall dafa bëgg a séparer Ousmane Sonko loolu mooy objectif. du wax katu dëgg loolu loolu moom moom moom bon loolu sax lu mën a nekk la. maanaam loolu bu sañoon Macky Sall dana ko def mais moom bu waxee am loola soppaliku doon leneen parce que dafa tàmmi wax ju dul dëgg. ma ba ñëw dama ko tudd nii rek par par parce que li Antoine mm. Félix Diome def mm-hmm. affaire bu dafa ma naqar yi xawoon benn soxna boo xam ne deful dara lu may plan Orsec mm-hmm. Abdoulahat Ka xaw maire Dakar xaw ma euh, Touba. Touba jël benn tiwo jëmale ko seen kër mooy kiiwu serpent yooyu ngay mu nekk ci pompe yi. Mm-hmm. nga xam ne dafa naan làppax su ndox mi dawee mu daal di euh, nokki jóg. ndox mi di fatt seen kër amul doole ji parce que du ñëpp am xelu mën koo toppale wala affaire yi moom mu ñëw jàpp ne li ci mën a nekk mooy fi mbir mi nekk comme seen kër mu dagg mbir mi fële. Mm-hmm. kooku loo ko toppee terroriste. tege parce que amoon na benn femme bu doon nekk Pastef bu mu xaw a bokkal tur tuuti wala bu ko bu ko xaw a jege tuuti mu ne ñu ne affaire acte terroriste. maman Amidia cinquante mille. Euh, non boobu boo gën a flagrant xam nga kii nii yàlla dogal baayam taaliba sëñ Muntaxa la mbokkam la sax. Mhm. mais bi biñ ko indilee sëñ am nga tey buñ demee ba nit toog ci kanamu sëñ Muntaxa di di ti bon di wax lu war a lu mën a tiital sañ bi pas tiital sëñ bi maanaam lu mënoon a tiital. nit ki mën a tiital nit ki mooy nga ñëw naan ko Touba daa am ay terroristes yu fi war a ñëw te yow même bu fa doon am sax efficacité voudrait que nga réglé ko ba pare te sëñ bi du xam sax ne euh, terroriste amoon na fi wala nangam te am nañ moyen yooyu bari na lu suñu service secret wala lu gendarmerie wala lu police man a fànq ba doo ko xam yàgg na ak Sénégal loolu mais pour jël mbir mi mettre en mal te loolu laa dul bañ baal Antoine Félix Diome su nekkee tubaa di layam layam yi sol sa mbubb bu ñu waxee nga ñëw naan sëñ nee woon na mu wala sëñ sa maanaam feni kese maanaam loolu ni ma mettee maanaam sëñ Saliou la nit ñi yàpp te moom rek ak yu demee noonu wax lu kii te ba noppi lépp luy taal dëkk bi wala luy tuumaal gone yi dema dem ba mettre ñu en mal ak diggante entre les talibé ba pare di wane wone talibé nga man loolu bu ma xoolee Antoine dafay tuuti trop ci man moo tax bi muy taxaw naan ay ay ay kii soxna soosu bu bokkul woon ak sëñ bi wala baayam kii sëñ bi teel a xam ne kii euh, doomam du mel noonu mu mu mu mu sànq ko sutura mu mu teel a wax ne bokk ci bañ génne ko nan lay demee bu ndaw si bokkoon Pastef mhm. su doon sama rakk la tey ñu def collaboration xam ne taqewul dara ak sëñ Muntaxa nëga nii tey du kookoon ci kaso bi mën na faa dee bu fa dee ku ko rey say fen mhm. far yàlla dogal lool gis nañu benn waay buñ doon jëri Touba jaawale ko ko benn sëriñ booru guy mbind police guy mbind mhm. man bi ma gisee loolu affaire daf ma naqari biñ ko jaawalee kii sëñ bi di dem ci ndekete kay sant Mbàkke xañ na tur yee bokk moom lañ jàpp mais ni ñu salfaañee ay àqam mais dafa def tour du monde wër Sénégal yëpp. mais loolu koy bëri na rek sax. waaw déglu ma rek. Mhm. bu ñu wàccee kooku dañ koo yóbbu mbuur rëq ndikkam policier boobu après man ma ne waa mais kon kii bu santoon Cissé wala mu sant Touré wala mu sant Dieng maanaam nii lay demee daal affaire yi du du kii le fait que mu sant Mbàkke mooy tax. te alors que bu kilifa yi taxawoon même bu daloon ko sant jaañ wala ko sant Guèye <laughs> comme li Cheikh Thiam <laughs> waaye ji di wax naan sant fëgg jaay yi kooku ci nga war a gën a taxaw ba bu ëllëgee keneen du ko xalaata def keneen te yooyu yëpp ci kan la am ci jamono ay manquement yoo xam ne nii waroon a mën a man boo doonee taalibe murit war nga poste bi bu ñu la ko joxee nit ñi xam ne ah ministre de l'intérieur de ki ko doonoon ki ko nekkoon doonu murit ci moom lañ gën a séentoo maanu ci Sénégal. Mm. boo gisee Matar Cissé keroog ma naan su ma xoolee ci ay propre performance am fi mu mas a jaar yëpp ak Cissé gi mu sant danaa xeeb li mu def mais buñ ko comparé ak ñi mas a jaar ci Macky Sall yëpp da leen di roppi di dem tey maa ngi ciy sant yàlla Matar Cissé du murit mais Cissé la sant ko man loolu dama ciy sigareewu dama ci glorifié wu mooy sigareewu parce que lan. da nga ma tudd di tudd sant Cissé ñu bokk kaye magi Cissé ma ne ko ah kon day rafetal rek la ma mënoon hmm. moo tax bari lu ma ko doon dale di ko ŋàññi doon ko ñaax la bañ mu gàccaal ma kanatil bu ñu xoolee Antoine Diome hmm. ci ministre de l'intérieur yi ma si jaar yëpp comparé ko ak Abdoulaye Daouda Diallo moo gën a ñàkk jom foofu ba ci Aly ba ci Bekaay Diop ba ci Ousmane Ngom hmm. moo ci gën a ñàkk jom man loolu laa ko dul baal. il a participé dans toutes les éliminations. yi gën a bon procureur Aliou Ndao procureur Aliou Ndao nee bi ma ñëwee Antoine ne ma naan dama koy moytul doo politicien moytul politicien yi la nga xam ne moom la procureur Aliou ndaw def ba moytuloo ko boppam moom lu ko tee a def doon benn maxar yàpp maanaam benn genre ku ñuy manipuler. Mhm. en plein procès te yow nga jàng am xel. Mhm. en plein procès yow ba ngay bala sa ndey ak sa baay di fayal jàng boobu xamoo Macky Sall mhm. te man bu la ko Macky Sall defloo nga def ko mais sa responsabilité la un ordre manifestement illégal nul n'est tenu de la respecter commençant ci ministre de l'intérieur bi war a taxaw bañal moom dafa waroon a nangu ndeyu Thierno Alassane Sall gën yaayam wala baayam gën ko dañ koo yar comme niñ yareke lu tax Thierno Alassane Sall bun jon étant premier ministre defloo ko mu bañ ne ko du ma bouton mu ne ko bu doon man double bouton laay def man yooyu jëkko yu yu rafet yooyu mm. te ci Thierno rek nga koy gis yooyu moom laay jël di ko di ko valoriser nit moo xam nga doon jullit wala nga doon mu murid wala naan bu ma la ci gisee yu ñàkk jom yi nag soo bokkee man ndey ak baay laa lay gën a jéppi mm-hmm. man looloo tax mënuma d'accord ak Antoine Diome ah. li ma si yokk Mambare mooy mm-hmm. boo xoolee dans euh, élimination adversaire politique yëpp Antoine a carrément vraiment participé dans l' affaire de Karim Wade mu ngi woon euh, fi nga xam ne moo di créé mu ne woon substitut procureur xaw mm-hmm. dans euh, l' na ci mbir mi et l' affaire Ousmane Sonko idem ci lépp loo xam ne dafay naqasal wala muy éliminer des adversaires politiques et tout. nekk lu doy waar leneen li mooy dañu dem ba dañu ñàkkal euh, fulla excusez-moi un ci par rapport ak taxawaay non force de sécurité parce que xam nga bu njëkk soo déggaa ñooy la kii GIGN la bokk wala kii bib la bokk. da daan am orma ci ñoom. Ah. mais pour des manifestations yoo xam ne man j'ai jot naa couvrir des manifestations au niveau de l'université lu mel ni GIZ lu mel ni BIP ñëw di di taxawaay benn taxawaay boo xam ne après donc on comprend pas dem ba Sénégal yi xam concrètement lan mooy seen kii dafa dem ba dafa wuñ ci yow yow sax tegoon nañ la loxo ci anam bu doy waar waaw leneen li aussi mooy euh, leneen ah ñamoon na ñam na ay ay ay insulte ay wax yu doy waar ci benn laps de temps bu gàtt mais c'est grave mhm. mais waali nag ci laa ko faay quoi waali na ko bu ma bu non journaliste dañoo sonnoon de <laughs> kii plongé na def am na pas sax bu doon mu ci menacé yooyu mais yow c'est des trucs leneen li tout simplement mooy. dañu demoon ba dégg na ko. dañu demoon ba parce que arrestation yoo xam ne on comprend parce que récemment dem naa bu ñu libéré les détenus politiques au niveau de fële ca Cërëbas mooy le cas ki ñu jàppoon loxo au niveau de Kër Massar ki doon ngénte. Mhm. mais keroog bu ñu la nettalee ni ñu ko jàppee mais c'était horrible comme si ay jihadiste wala terrorisme. Mhm. nee nañ trois oto moo si c'est des exceptions après on comprend pas que dañu demoon ba dañu doon dañu doon génne li nga xam ne mooy sutura askanu Sénégal mm. maintenant je pense que des pratiques yoo xam ne jàpp naa ne ko au niveau du Sénégal gis nga foofu gis nga créé bi ñu koy def met El mere naa ko gépp mere de mais gis nga su masaana jàkkaarloo Karim Wade wala ñenn ñi nii dana am benn met El Hadj Diouf ci affaire Ousmane moom la mel nii rek mooy loolu quoi xam naa nag moom kaa mook Sonko le fait que ñu ko doon wax député du peuple après Sonko ñëw volé ko la xaj na soxor googu moo ko mujj animé <laughs> mais ci kër kër yi dama la koy wax de. Mhm. boobu Antoine mi ngi nekk si petit mais Antoine buy wax sax mooy raw fuuf procureur bi dëggantaan. Mhm. di wax waxi xamade joo xam ne du la traité ak de respect même bu la Macky Sall defloo sale boulot même la nga koy defee sax dafa war a am harmonie. Mhm. mais da nga xam ne ak coxoram ak ña ak yaradikoom ak ñàkk tegginam ak mbonam moom moo ciy feeñ ba mu koy gën a mën a exécuter. te pourtant Alioune ndaw mi nga xam ne moom moo doon procureur bi. Hmm. spécial maanaam kii bi ak ñu demee noonu. sax noonu doonoo ko ci woon gis muy def même ki ñu indiwaat sax bi ñu ko indiwaatee day mel ni Antoine mooy procureur bi. Hmm. day mel ni mooy procureur spécial bi moom. te doonul woon dara lu may sikki ci. Hmm. loolu nag boo teeree wan nit ki ne ko loo ma defloo ci bon ma def ko. loolu moo lay may promotion te Macky nag loolu la aaye woon maanaam boo ko doon defal lu rek da ngay am promotion. loolu moo doon wax ji. moo tax après ñu jaf la agent judiciaire de l'État mais yii ñuy wax nii yëpp yeneen la lu ay papier ak yooyu mais man ci xaalisu agence du de l'état boobu bu dee moo signé moo signé soixante quinze milliards yooyu. maanaam nëgë ni kaso la war a dem. parce que fu Sénégal war a laaje deux mille mille deux mille cinq cent milliards. nga yegg si bañ ci te loolu dafa flagrant. moom sax dafa war a ñam soxna si nga ah, xam ne soxna soxna si nga xam ne dañ ko koo signéloo muy Mati Gassama mu bañ ne lii du intérêt Sénégal yow ñu teg la fa loola dugg. kon soit yaa ko signé wala keneen. Mhm. par mesure de prudence dama koy bañ a tooñ wóoruma ndax moo signé mais loolu maa ngi koy gëstu ba tey te dinaa mais bu dee moo signé non fu mu gëstooti dégg ma dinaa ko lëjal ni yamb <laughs> fu ma toogati bay moom xam ne moom moom dootu fa am. en tout cas ñaari parce que problème bi mooy. ñaar ñi jiite ñëpp ay ay ay ay euh, nuñ koy waxee sax euh, impo lañ nekk nekk fa ay inspecteur nekk fa ñoo xamante ni def nañ fa ay année te kenn tuddul leen ci benn luubal donc jàpp nañu ne. Euh, li nga xamante ne moom la ñuy xaar dinañ ko dinañ ko am ci ñoom. non xam nga euh, benn neexut quoi xaalis bi ñu leen doon jox moom Antoine ak Alburi Ndaw mhm. waxuma Alioune Ndaw Alburi Ndaw ñuy dem di tukki ji ci dëkk yi ñu ne fa la Karim Wade sàccoon xaalis fa la ko def. Mhm. xam nga li gën a doy waar nga ñëw ba yegg si ñu ne waajaan ci entre les quatre murs nga ne woon bu ñu ma joxee mandat rek nangam dinaa indi quarante cinquante trois milliards yoo xam ñu ngi ko laa xaw ma ci benn compte Singapour dem yegg de dañ koo toxal quoi ñëw ci nii yaa ah, nii. waa ji porté la plainte Karim Wade porté plainte waa ji. ñu war leen a dafa am dam je pense ñu war leen a tegal projet. ñu téye Karim Wade ne du ñëw ci projet boobu du ma ko fàtte mu ko saal 4 la woon euh, du woon salle 4 beneen salle bi la salle 3 la woon. salle 4 lañ doon defee ba xool ma benn xeetu maanaam loolu ñoom ci boppam gis nga moo tax la ñu leble woon lu bon ci côté boobu rek lañ jàpp ne lu ko raw moo leen di dal mais ñii du ñoom ñii. ci maandu la ñu teg li ñu teg te li nga la koy wan mooy dañoo publier affaire yi ba sénégalais yi am ci apprécié léegi nag ku ñu topp te waruñ laa topp yow di nga ko xam kii dana ko xam ñee nag de contraire bi lañ defoon dañoo làq affaire yi ba pare jël affaire bi parce que Abdou Latif Coulibaly nee woon na Karim Wade nangam mais mën naa fen que mën naa wax dëgg kon la ko indi rapport bi nga xam ne bi nga liggéey voilà ci nga dem voilà ci nga dem liggéeyal mais jëlal rapport boobu na génn rapport annonce yi mais na génn mais bu ci teg loxo rapport euh, pétro euh, kii bi nam tuddati euh, présentation bi wala pétrotype mm. na génn bu ci teg loxo mm. mais teg ci loxo ba pare bàyyi sénégalais ci fulu ku nekk di jóg naan na nangam ak nangam te xam moo tax sénégalais yi loolu nga yàgg def ci fen teg ko ci Karim Wade tegaat ko ci xalifa parce que ak loo ci mën a ay fen dugg na ci mm. bi nga ko bëggee def ci Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñu jóg naa ne plus jamais ça heureusement te da doon bañ lu gën a bon mujj nañ buñ sañoon am Karim Wade wuutu leen wala Khalifa wuutu leen waaye kiñ doon gën a bañ mu wuutu leen kooku ëpp leen xel looloo fi indi joomaay tey moo tax mbir mi nii gars yi wax nii yëpp nañu may ñi jàmm tuuti mhm. sénégalais yi ñun heureusement te peuple bépp ñu ngi taxaw di leen gunge te nga teg nañ gouvernement mënoo wax accam teg nañu génne nañ rapport bi nit ñi tàccu ak seen fukki loxo parce que information bi yow yaag joomaay ci yaag président joomaay ci am mhm. yaag Sonko ci am mhm. elewulee mal lu ñuy wax fii amul luñ fi wax de amul luñ fi wax yow boo ko bëggee xam-xam ko moo ko bëggee xam-xam ko li bonoon nag mooy nga nëbbu rapport yi ba pare xëy dal ci Mame Mbaye Niang mm-hmm. ce que xam nga Mame Mbaye moom bi mu toogee ne rapport setal na ma kii daal dem jëli fiis euh, Mansour Faye Mansour Faye est ce que xam nga buñ ci tegoon weer ñu dugg ci yéeg ci fafafal naaw naaw dem Angleterre wala feneen ak feneen après boo leen wooyee est ce que am nañ jom ji Karim Wade amoon nga woo leen rek ñu daal di ñëw ne dañuy leeral suñu ñëwut fee la ñuy toll ak ñu ñu activé fii ci presse bi bul fàttale opposition milliardaire la ñu am ñu taxaw di leen layal waaw ñoom ba ba leeral jotee dem nañu jëli OFNAC wan leen kon bu fekkoon ne dara taq na leen ñoom ñoo leen waroon a téye loolu lañu lay wax. am na fii ñu naan la Macky Sall dañ ko war a téye warta dem Macky Sall si les quelle base nga ko war a téye ba ba ba mënul war a dem. ils ont parlé de haute trahison et cetera mais haute trahison man xam naa ko délit initié ngi ci lu dul jeex man xam naa ko ni nga ko xamee mais bu dossier bi ubbiwul ba justice man koo teg loxo mais doo ko doo mënoo ko mënoo koo téye c'est pas élégant loolu la quoi mhm. en tout cas daal ba nëga ni gars yi moom ñu ngi ciy woon mhm. dañ leen encouragé ñu jeexalee ko euh, Bamba on verra la suite daal fa la ñu waaye non jàppal amal xel xel mu dal ci ne lu baax la ñuy def ba keroog ngay gis le contraire Ah, mais waxuma le euh. contraire aussi de. waaw non non si. non non non j'ai pas dit le contraire aussi. Ah. waxuma le contraire mhm. ba léegi fi ñuy teg baax na wala baaxagul am na loo ci gàkkal.